mbokk ñuy teewlu ci Sénégal set dal nag jàmm tey entretien avec génn ci studio déplacé wu ba université Cheikh Anta ñu nekk fii ci département de sociologie di dalal benn euh, citoyen di yëngu itam ci euh, société civile bi muy le professeur Malick Ndiaye professeur Malick Ndiaye nag di professeur de sociologie doon it coordonnateur du comité d'initiative des intellectuels du Sénégal bokk itam ci kuréel gii di ñoo lànk gi nga xam ne ñu ngi ko sanc ginnaaw gu ñu yokkee njëgu électricité yi professeur ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen euh, remercier ci déplacement bi te di leen déglu tamit di ñaan rek. Euh, Guy Marius ak euh, camarades yi nga xam ne gars yi ñu ngi leen téye euh, ñu daal leen ba nu mu gën a gaawe ndax réew mi bu waree waxtaan jàmm ci la lépp xaj ci coow loolu sax lañuy des ndax Guy Marius Sagna ak ñeneen ñi luñ loon jàppe woon mooy dañ doon ñaxtu dox ba buntu palais présidentiel di ñaxtu daal ngir ñu wàññi njëgu électricité yi ñu yokk collectif ñoo lànk ñu gis leen temps yi ngeen di dox di dem di nemmeeku yenn homme politique yi ak médiateur de la république lu waral taxawaay boobu. Euh, xam nga réew mi dafa am euh, doxalin boo xam ne bi gën ci doxalin yi nga xam ne moom lañu mag ñi jàngal te mu wóor mooy waxtaan moo jiitu lépp. waaye waxtaan bi dafa am solo ñu waxtaan ba ku ne dégg li nga xam ne moo nu tax a jóg xam nga léegi problème boo xam ne ñu ngi koy régler mooy ñoo lànk nuñ koy waxee ci soo soninke yéen ñi may seetaan na leer de buñ nee ñoo lànk muy wolof mbarra soninke yi mbara mooy loo xam ne ñoom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg sama mbokku pulaar yi ñuy seeti waxtaan ak ñoom ñoom nee nañu mooy min calima min njiida min calima min njiida loolu ñoo lànk ci waxtaanam ci la bokk waaye yemul foofu boo demee ci joolaa yi olli ji mangu let ji mang loolu boo demee ci joolaa yi ñu ngi wax ñoo lànk waaye dañ koy wax ci seen kàllaama nga dem ci sama mbokku séeréer yi xam nga ñoom laa gën a yëpp inni pas mbay boo lang boo dem tey jii ci dëkk bi danañ la wax ni la ay euh, Sénégal yëpp kon moom mooy waxtaan fàttewu ma nag ñi nga xam ne ñoom joué nañu rol bu am solo ci senegal muy mandeng ngi bambara yooyu inte sonna mbang na leer kon waxtaan bi du waxtaanu euh, waa Dakar yi euh, waa intellectuel yi waa ñoolank ak déedéet waxtaan bi dañ ko seet ñun ba def ko ci lu mat juróom-ñaar ba juróom-ñetti euh, kàllaama kon ku ne war na xam ne Sénégal moom moo am tey problème mooy euh, dund bi dafa toll foo xam ne ah waxtaan moo gën léegi li nga xam ne moom moo tax ñëpp jaaxle mu ngi ni ñun dañoo def étude toujours xam nga nag man université la nekk waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo dem jëli plan bi nga xam ne Senelec ci boppam moo ko defar Abdoulaye Wade plan tàkkal la yore woon Macky Sall bi mu ñëwee ànd ak au euh, fañing fañ fañ ca wàccaa caaj moo ne lan daf ne moom dafay dindi plan tàkkal bi def plan yeesal adu jënga amul problème mais plan yeesal bi liñ ci wax ñoom sunu camarade muy Amadou Gueye xam ne spécialiste la dem na jëli ko ba leeral ko ñoom dañu ne entre 2016 maanaam juróomi at ci gannaaw ak 2020 muy at mi électricité bi njëg bi dana wàññeeku ba wàññeeku ba wàññeeku ko daan fay téeméer da nga dem ba fay moins de cinquante pour cent yi waaw loolu ñoom ñoo ko wax moom mooy seen plan muy plan yeesal te ñun publier nañ ko plan boobu Malick Ndiaye defu ko Amadou Gueye mi ñu ko leeral defu ko Fadel Barro defu ko kenn defu ko Senelec moo ko def te Senelec société nationale la moo tax ñu ne bu fekkee ne jafe ñëw na ba toll foo xam ne nit ñi ñoo war a fay ah li doy waar mooy boo yokkee tarif douanier yi yéen a ngi fàttali ko de bi ñuy yokkee fiscalité douanière bi dañu ne woy kooku commerçant yi rek la concerné mais léegi gaa yaa ngi jooy ndaxte du commerçant yi rek boo yokkee njëgu kii fay fiscalité bi maanaam kii importé dara dugal ko mais kooku bu ñëwee ki koy jaay daf ko yokk ci prix bi bi ñu yokkee essence bi ah ñi nga xam ne seen xam-xam tolluwul noonu wala seen xel yaatuwul trop dañu ne woy kooku ñi am oto rek la ndekete yoo boo laalee essence bi laal nga lépp léegi nag bu ñu demee ba laal électricité bi ëllëg tailleur bi dana yokk mareyeur bi dana yokk fu nekk kiy jaay dana yokk kon problème bi waxuñu ne bu fi kenn yokk bu fi kenn laal déedéet dañu ne gannaaw ba dañu ne woon ci juróomi at njëg bi dana wàññeeku mais nan ñu wax lu tax njëg bi war a yokku bu fekkee ne léegi dëgg la ne yokk na dëgg dëgg dëgg dëgg mais nan ñu wax am na feneen foo xam ne loolu la ñoo lànk waxtaan ba d'accord si am na boo jëlee au conseil mais au conseil ñaata milliards lay lekk ñoo xam ne kenn xamul seen liggéey lan la muy HCCT sunu camarade bi sunu waa ji yàlla na ko yàlla yaram jóge fa muy Tanor Dieng waaye au conseil bi nga yokk ci c'est c'est e commission Mimi Touré bi conseil économique environnemental xaw ma lan lan lay jëriñ ñaata lay lekk kon boo ko jëlee noonu da gis ne am na ay li nga xam ne moom la Fadel Barro di wax ay institution budgétivore budgétivore mooy ko xam ne day lekk xaalis bu bëree bëri bëri te du jëriñ dara léegi li gën a daw dal xe téye sunu fit ñun ñëpp teyal ko mooy bu ñu demee jël li nga xam ne moo waroon dem ci baykat yi ñu koy wax intrant ñu jox ko ay politiciens membre du pouvoir ah dafay doy waar loolu man waxuma ko ñi ko wax ci biir pouvoir ba nekk te xam nga ni ne Moustapha Cissé loo ci la bokk loolu te kenn weddiwu ko ba léegi boo demee nga gis un député bu toll ne ki may bañ a wax turam mu génne ay billet Bouga monnaie boo xam ne moo gën a bees éco muy Bouga billet n'est-ce pas kooku ndekete yoo vendeur de faux billets la bañ ko nee nuut dañ ko bàyyi mu dem Babacar Diop mi nga xam ne bureau ma ngi nii bañ ko nee nut dañ ko jàpp rek dugal ko ci foo xam ne deux cent personnes ñoo fa nekk ñaari téeméeri nit kon li teyal xelu nit ñi ba ñu ne ñoo lànk mooy dañoo bëgg ñu wax ñu bu fekkee ne électricité bi doxatul ni mu waroon a doxe lu tax dañu jàpp ne comme ni ko professeur Malick Ndiaye bindee lu mat fanweeri at a ngi nii accaparement maanaam euh, jikko ceddo bi moom moo dugg gaa yi ba xaalis fu ñu ko gis rek dañ koy jël fab def ko nii dugal ko feneen kon moo tax nañu wax lu leer ñoo lànk bi ñun def nañ ko ci joola def nañ ko ci bambara mandeng soose def nañ ko ci pulaar def nañ ko ci kàllaama yëpp Sénégal gi yëpp tey jii mooy discuter fàttewuma nag immigration bi kon il faut que dëkk bi waxtaan ci lu tax ñu ne ñu woon day wàññeeku ba pare mu yokk bu fekkee ne état bi moom moo ameel xaalis Senelec mais état bi am na feneen fu mu mën a tibbe institution budgétivore yi may yi fadal di wax maanaam ay haut conseil ay commission sant euh, économique et sociale ak yooyu mais yooyu jaruñu fi dara kon ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a fay xaalis bi mottali électricité bi ñu ngi fi laala ñu leen ñu ne nag léegi réew mi mooy fay Abdoul mbay am na lu mu fi wax de te Abdoul Mbaye li mu wax lu leer la nekkoon na fi premier ministre donc xam na li muy wax nee na état bi dafa soxla xaalis bu bu gaaw moo tax muy yokk permis de conduire yi jël xaalisu mareyeur yi ñu jël suuf yi fuuta fu nekk jëm jël nangu kër yi ngalal ca Saint-Louis dem boole fu nekk Sabadola fu nekk kirzen bi ak yëpp kon réew mi dafa toll foo xam ne li ñu doon wax société d'accaparement maanaam société boo xam ne da nga naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. loolu moonu dab foo xam ne fooguñu ko woon kon nag électricité bi du électricité rek dafa am lu ci lalu. waaw mais professeur ñoom aussi am nañ ay argument ñu ne daal os boobu du laal cinquante quatre pour cent des sénégalais maanaam quarante six pour cent des sénégalais rek lay kii te réajustement yi c'est temporaire maanaam du wéy te aussi évoqué nañu ñu ne aussi Sénégal am na ci àll ba ñi nga xam ne ni aussi amuñu électricité waa dakaarit ak ñi dëkk ci ville yi nga xam ne ni am nañ privilège yenn yi am courant est-ce que ñu contribuer aussi. ci nu ñu fexe seen yeneen compatriotes yu nekk ci région yu reculées yi villages yi lu ne tamit contribuer pour ñooñu tamit am accès à l'électricité comme nuñ ko amee wala. loolu mooy li nga xam ne euh, réew mi buñ ko defee ci kàllaama joola ñëpp bu ñëpp xam mandeng ba yëpp ànd danañ xam ne xaalisu réew mi dañ koy waxtaane buñ ko waxtaanee nag danañ xam li nga xam ne ci réew mee ko moom waaye ci poosu ma demba ak ma sàmba lay dugg ñëpp xam nañ ne Thierno Souleymane Baal premier moom moo njëkk a changé société fii ci àddina bi yëpp laa wax de. mooy révolution Torodo ma leeral nag ne Torodo du affaire pël du affaire tukulóor de déedéet Torodo. ci ci ci kàllaama tooroodo mooy ñi dëkk tooro loolu la tooroodo tekki de kon tooroodo révolution ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon tooro moom moo ne on ji omon ndaara kaalis ngi teremo doole nee na boo jëlee nit nga jox ko mu jël pouvoir bi ngay dénk ko ko boo ko gisee walla ñi ñi ko wër ñu jël xaalis bi di kii rek demal seen kaw kon Thierno Souleymane Baal bi muy réglé loolu moom teel naa gis ne lii gë li gën a gàllankoor mbirum defar réew mooy ngay def o fañi fañ-fañ di rëy di wanewu di fuddu mel ne yow yaa gën nit ñi kon Thierno Souleymane Baal boo gisee ma di ko wax loolu mooy nanu leeral xaalisu réew mi fu mu dugg waaye bu fekkee ne député bi gënoon a bare wax di défendre président bi jàpp nañ ko ci faux bu fekkee ne euh, ki nekkoon fii ci COUD jàpp nañ ko ki bu fekkee ne euh, ku mel ne Mame Mbaye Niang jàpp nañ ko lu ma ay 30 milliards bu fekkee ne ak yooyu ak yooyu bu fekkee ne loolu lépp la ku bëgg a dalal xelu nit ñi da ñëw ñu waxtaan waaye doo ñu ne dañoo bëgg a yokk ndax waa Sabadola li ñu la wax mooy Sabadola lu tax amul maatam lu tax amul lu doy nit ñi dañu jël xaalis bi def ko ci seen poos kon li tax Matam amul li tax fuuta amul li tax euh, fii ngalal ñu nangu seen suuf li tax mareyeurs yi di grève li tax enseignants yi fay ñu leen seen xaalis dafa am ñoo xam ne koom-koomu réew mi xaalisu réew mi dañu ne jëlal rek tibbal bu ñu la nommé DG ki gën a dof amul benn diplôme ñu nommé ko directeur foo xam ne tuuti xam-xam soxla nañ ko kon bu fekkee ni politicien moom ngay nommé PCA politicien moom ngay nomee euh, fii fa ak yooyu lu tax nga nommé ko noonu pour mu dem ne président bi moom ma yónni yóbbu ay valis ay xaalis bu fekkee ne loolu la boo ma nee dañoo bëgg a jox maatam électricité ma ne la bravo wax nga dëgg waaye lu tax maatam amul lu tax ndar amul lu tax kokki amul lu tax lingeer amul lu tax lu tax lu tax lu tax société d'accaparement bi maanaam ñi ne xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti kon ñi joxe argument boobu nanu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu génnee lépp loo xam ne mooy information ci xaalisu réew mi Mamadou Lamine Diallo Abdoul mbay am na question yu ñu posé bind ko ci affaire pétrole bi ba léegi kenn tontuwu leen kon nan def ndànk ndaxte Sénégal am na ñoo xam ne euh, mosu ñoo liggéey xëy suba teel rek ñu tabax bâtiment bu mat fukki étage ak juróom ñu ne waa waa ji fan la jaar ñu ne dafa am xarit boo xam ne jinne la muy ay jinne Maymuna ay jinné Duudu ay jinne euh, Buga ay jinné Aliou ay jinne bu nag loolu moo xew léegi ñi ngi ñaan nañu waxtaan ci suñu biir ku ne nag waa ji wax ni dof la ma ne la ñun dañ ñoo jàngal boo mane nee li ngay wax ëpp a ah ma ne la fa sa tub siru fa na bi ayikumul maftuun maanaam on verra qui d'entre nu kan moo ci dof waaye ku dof dëgg dëgg dëgg dëgg mooy kuy dem jël alal ji waa ji ñëw war a faju mu ñëw hopital ñu dàq ko du fi jeex wala nga dem di def li nga war a def sa kër doom nga jóge fa gaañu lu tax ndax Demba Samba au nom du parti ñoom ñoo ñëw jël affaire bi yóbbu ko feneen kon situation bi dëkk bi tollu du lu bees lu ma 30 ans ngi nii waxtaan nañ ci ba mu leer nañ kon man li ma bëgg te maa ngi koy ñaan ñëpp muy Macky Sall muy président assemblée nationale bi Moustapha Niass muy tamit ñoom de Decroix ak ñoom Idrissa Seck ak ñëpp ak société civile yi muy ay ñoom syndicats yi yëpp il faut que réew mi daje waxtaan ci li nga xam ne moom moo ko metti bu réew mi daje ba waxtaan mais jàmm dana ñëw waaye mënoo ma rek dem jël ay statistiques rek naan way 51 pour cent vingt deux pour cent xam nga loolu koo ko waxee koo xam ne loolu daf koy jàngale dala naan yow mii li ngay wax xamoo ko waaye loolu bu ñu demee ba egg ca ñëpp danañ xam ne graphique yi ñuy def maanaam ay dessin statistique yi ñuy def ay vingt deux pour cent dix pour cent quatre pour cent wala li ñuy def ay article un article deux article quatre article cinq oh, jikko boobu ci yore réew kooku jikko ñi nga xam ne ñoo koy def mooy jikko franc yi nga xam ne dafa am fu ñuy nëbbutu te li ñu gën a bañ mooy ku mel ne Thierno Souleymane Baal wala ku mel ne El Hadj fu Foutiou wala ku mel ne Cheikh Ahmad Bamba kon jikko yi nga xam ne moom la sénégalais yi am te muy jikko yu baax muy ci joolaa yi muy ci séeréer yi muy ci sunu mbokk yëpp jikko yooyu moom moo ñëw ànd ñi nga xam ne démb ñoom ñoo defar woon defar réew mi ba ñu def leen ay modèle maanaam di leen woo pour ñu dimbalee ñu du Thierno Souleymane Baal rek waaye ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wut yoon yoon boo xam ne moo gën fuuf te du moroomam yoonu tubaab yi Thierno Souleymane Baal jël xaalisu réew ma ray boppam moo ko ko gënal kon lépp loo xam ne ñoom jàngale nañ ko te booba tubaab yi ay buur lañ yore Thierno Souleymane Baal bañ ko ne yow yaa doon jiite affaire bi kay nekk président bi moom la ñuy wax euh, almaami mu ne leen déedéet man damay liggéey mais loolu jikko jooju kan moo ko continuer El Omar wane na ko jikko jooju ku ko wanewaat fii boo demee ci monseigneur euh, euh, Benjamin Ndiaye da nga fa fekk jikko boobu monseigneur bii ci église bi laa wax de boo demee ci Masalikal Jinaan le 27 septembre mais da nga fa fekk jikko jooju kon nunu def ndànk ni ko sëñ Touba di waxee rek muy vers numéro 850 Masalikal Jinaan nee na lépp loo gis muy ñaaw ci jikko nit rek ragal ku la wax dëgg la ak bëgg ku la tagg mooy numéro 850 Masalikal Jinaan kon ñun nanu góorgóorlu Sénégal li ko yàlla may lépp ci kilifa yu baax ci dëggu ñu jéem koo defar ci sunu biir ñu waxtaanee ko te buñ ko waxtaanee rek dana danañu xam ne xaalis biy dem ci politique bi buñ ko jëloon dugal ko fan ko war a dugal mais euh, Sénégal dana passé fii mu toll nii kon li rafet moom la ñu xaw mel ne dañ koo ba jël nag yoon boo xam ne coow la ñuy indil xale yi ñu jàpp di leen rendi di leen sacrifier mais loolu boo demee ay politiciens la encore man sociologue maa ko wax boo demee ay politiciens parce que politicien bi comme dafa ne xaalis kenn du ko liggéey mais day dem seeti benn bojo bojo rawxaan wala dara mu ne ko léegi nu may def ba am poste bu baax mu ne ko ah boo ma joxee lii de ma defaral la lii defaral la laa defaral la laa yooyu moom moo indi ñuy dem di jàpp ay nit di dindi seen xol wala dara pour lan pour jaay ko wala ñu dem ci cimetière catholique di ko toj wala dem ci kon Sénégal dafa toll foo xam ne maa ngi ñaan ñëpp nañu góorgóorlu ñu toog waxtaan waxtaan bu sell waaye waxtaan boo xam ne dëgg moo ci jiitu waxuma la nag beneen modd waxtaan boo xam ne euh, gars yi dañuy nëbbu pour euh, préparer li ñuy ñu ñëwaat euh, professeur ci euh, stratégie ñoo lank bi parce que am na ñi nga xam ne nii li ngeen di rencontrer yenn homme politique yu ci mel ni Wade ak ñeneen ñi da leen xaw a déranger la fois passée maa ngi liir benn contribution bu majambal Diagne bu ma defoon lundi passé ci le quotidien xaw ma ba xam liir nga ko mu ne par exemple mu ngi ko titré c'est pas chez Wade que vous devrez aller vous plaindre parce que Wade ko ko xam ci régime am aussi c'était pas trop ça ci électricité bi par exemple xuy kamaj bëri woon na lool et cetera et cetera ak yeneen mal gouvernance moom noonu la ko argumenté woon donc dem di xool politiciens yi est-ce que du tax euh, ñu taqal leen ne ay politiciens encagoulé ngeen ndax Momar Asko Sen Momar Ndao Asko seen sax wax na ko nee na ay politiciens yu làq ngeen et cetera loolu est-ce que du gën a crédibiliser euh, kàddu yooyu waaw xam nga Madiambal moom euh, man dama d'accord ak moom euh, kenn du dem ci kër wàdd pour di def plainte foofu la a raison kon euh, coow li rek mooy lan lañ fa doon wuti boo seetoo bu baax ci livre bi nga xam ne mu ngi tudd Où va la République Où va la République mi ngi nii professeur ku bind Houellère prof où va la république mi ngi nii livre bi ministre conseiller bu toog ci fauteuilam présidence de la république moo ko bind ne Macky foo ñu jëme yow yaag Mimi Touré Mahmoud Saleh Mor Ngom ak seen gaañ yëpp fu ngeen ñu jëme waxu leen ñu woon lii kon bi fe bi nga foog bi nga xamee ne Abdoulaye Wade ñi nañu ay erreur yu bare ba mouvement 23 juin jog mais professeur ci la bokkoon ak ñoom Alioune ak ñu bëri léegi problème bi mooy gannaaw ba ñun ak Macky suñ camarade président na nañu ak ñëpp ñu ne Ablaye Wade li ngay def du noonu ba élection yi ñëw réew mi jëlee ko fi ñu ne déetawaay ñu gis ne li nga xam ne moom lañ doon bañ ak Ablaye Wade ah sama camarade président Macky de lay wax mi ngi koy def Mariam fay Sall fu ne mu fay dugg Mariam fay kenn falu ko Aliou Sall pétrole bi kon lépp loo xam ne ñi ngi doon wax ne ñi ngi koy tuumaal Ablaye Wade bu ko Macky day def mais livre bi mala woon nii mais livre bi autocritique la autocritique mooy lan mooy lépp loo xam ne ñi ngi ko doon bañal Abdou Diouf ñi ngi ko doon bañal Ablaye Wade ñi ngi ko doon bañal ñëpp ñu fi jaaroon ki nga xam ne ñun ñi ànd nañu ñu ne moom la yoonu yokkute la bu ko defee nu ñuy def dañuy ànd ak moom di lekk wala di ànd moom di saay-saay wala di wax dëgg kon problème bi loolu la kon Ablaye Wade lañ fa doon wuti mooy dem seet ko waxtaan ak moom si benn affaire rek mooy président électricité bi amoon nga plan takkal nouveau régime bi mu ñëwee dafa ni plan yeesal mi ngi ni léegi plan yeesal bi li mu waxoon da koy def dafa mel ne daf ci juum kon Ablaye Wade ak Mamadou Diop Decroix ak euh, ñëpp ñu ànd ak Macky Sall Moustapha Niass ñun ñëpp normalement war nañu mën a ànd ñu waxtaan ci sunu électricité parce que bu ñu waxul ci électricité bi ak Ablaye ak Macky ak APR ak ñëpp ak médiateur bi ABC mais réew mi di waxtaan kon ñun attention de Ablaye Wade li ñu fa yóbbu mooy li nga xam ne defoon nañ ko engagement ba ne dootu amati ci réew mi Abdoulaye Wade bu d'accord ci loolu ànd ak ñun li ñu dese mooy dem jëliwaa waa APR yeeg euh, ñii de bokkoon Macky 2012 ak syndicat yeeg ñëpp parce que du politique ak politicien moo ñu daxa a jóg kon mbir mi des na kon moo tax ma jambal man mënuma am problème ak moom parce que en plus sama xarit la xam naa dafa nekk rek situation te man xam naa situation yi nga xam ne Euh, aussi gaa ñi dañuy def li ñuy wax buzz kon man du ma waxtaan ak ma jàmbal ci loolu dama koy leeral rek ni ko bu ñu jógee ci Ablaye Wade danañu dajeek Idrissa Seck ak euh, grande coalition Idrissa Seck bi xam naa ne ci semaine bii la day ci faal ci ba boppam moom ma ko wax ni ma Idrissa Seck dana leen recevoir bu ñu paree foofu euh, Macky Sall gars yi ne nañu dafa bëgg mu recevoir ñu mais loolu ñun li ñu wax Alioune Badara Cissé dañu ne ko bu fekkee dañuy ànd ak Guy Marius allons parce que Macky Sall erreur bu mu def foofu lan la mais Babacar Diop ak Guy Marius bi ñu demee ba ca palais ba Macky Sall bu fekkoon ne consulté na professeur dama ko naan mais <laughs> camarade ubbil porte bi dugal leen ci biir ngeen leen lu ngeen di wut mais c'était ça la stratégie stratégie bi Macky Sall waroon a appliquer mooy bu jeunes yi ñëwee ba ci bunt bi mais da leen di wax egsi leen ni leen lu doon seen tànk mais loolu dara nekku ci loolu Washington dafay am donc réew yi muy am bare na kon nañu góorgóorlu ñu bañ a réer kon problème bi du defari électricité bi ci zone rurale yi ñun am nañ ci dossier yu leer nañ du aussi dem jël ci poosu kii def ci poosu kële ki nga xam ne moom moo jël xaalisu réew mi wala di ko lekk ci zéro kooku boo ko tojoon wala nga jël xaalis boobu nga supprimer ko mais électricité bi day wàññeeku kon difficulté du am ci dëkk bi moo tax maa ngi ñaan à nouveau muy makisal muy Moustapha Niass muy Ablaye Wade muy Mamadou Diop Decroix muy Idrissa Seck muy dirigeant yooyu ak dirigeant yi nga xam ne ñooy ñoom monseigneur Benjamin Ndiaye sëñ taxa sëñ Mbaye Sy Mansour ñoom ñëpp il faut que ñëpp daje ñu mun a wax waxu réew mi loolu ñun moom moo ñu tax a jóg waaye ñoo lànk bi moom mbara maanaam duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg affaire électricité bi ndaxte buñ ñu joxoon données yi maanaam li ko firndeel liñ ci jot li ñu bind ba plan yeesal bu Macky Sall wane ko dañu ne woon dañuy wàññi bu ñu toogee nag bañu ñu won ñu lu tax li ñu waxoon ñoom ba réew mi ne gonga defuñu ko mais bu boobaa waxtaan am kon daal ñun bëgguñu yee fitna bëgguñu coow bëgguñu saaga dañoo bëgg rek góor wax ja léegi vendredi passé ngeen amaloon benn manifestation place de la nation euh, ëllëgu xeex bi lan la. ah ñun de euh, bu fekkee ne def nañu ñëw réunion euh, danañu jël décision boo xam ne ñoo lànk bi yëpp la mais li ma mën a wax mooy lu mat une cinquantaine juróom fukki association tey jii xam naa ëpp na ko sax. ñoom ñoo gaawantu te li ñu uh, waaj a def mooy ñëpp daje ñu waxtaan ndaxte mbir mi dafa toll foo xam ne il faut que réew mi waxtaan. léegi nag loolu bu ñu ko defee ci jàmm ah danañu gis ne réew mi euh, li ko gàllankoor du ñoo lank ñi fa nekk rek léegi ñoo ko war a waxtaane waaye ñëpp dañ ci war a ànd. muy parti politique yi boycotté Famara muy parti politique yi nga xam ne ñoo fa nekk muy syndicat yi muy centrale yi waaye muy ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci réewu mareyeur yi enseignant yi nga xam ne dañuy grève na nañ leen fay seen xaalis étudiants yi nga xam ne xamuñu fu ñu leen di dugal waa ngaleel yi nga xam ne dañu jël seen ay bâtiment lébu yi nga xam ne dañu nangu seen suuf kon réew mi fu mu toll nii tay jii li ko mën a saafara mooy ni ñuy ànd ak dal ñu toog waxtaan waaye waxtaan bi day nekk waxtaanu dëgg du nekk waxtaanu bojo bojo boo xam ne da ngay dem indi ay nit pour ñuy saaga ñeneen wala di leen sewal. Euh, waxtaan bi aussi yaa ngi woote waxtaan mais aussi am na dialogue national bi nga xam ne nii mu ngi déroulé wu démb rek lancé nañu comité de pilotage bi dégg li ci am yëpp dialogue boobu est-ce que du cadre bu approprié ngi ngeen dem toog. wax lu leen naqari aussi comme réew mi yëpp ci daje pàccu réew mi yëpp ci daje boobu. waaw xam nga man du ma porte parole lu ñoo lànk ñoo lànk yabaluñ ma n'est-ce pas man professeur ngay waxaataanal moo tax ma bëgg a leeral rek xam nga euh, fi nga xam ne moom la Macky Sall dafay erreur mooy moom warul woon bind première liste bi. waaw te première liste bi boo ko seetee ba seet ko quatre-vingt yi ci nekk euh, dafa mel ne moom moo ko bind ñun wax nañ ko depuis man wax naa ko depuis deux semaines alors léegi gars yi ne ah grawul nañ dem ñu toog ñu ñëw rek fekk ci salle bi lu mat ci li ñu wax ñeent fukki nit waaw mais loolu dafa doy waar waaye dafa dëggal erreur bi nga xam ne moom la Macky def Macky bu fekkoon ne sama camarade Macky Sall pas parce que ñun ñoo ko fi teg <laughs> te ñun suñu responsabilité la lu mu def lu ñaaw rek man am naa ci responsabilité man ak Mahmoud Saleh ak ñoom mimeeg yooyu kon léegi problème bi mu lan la mais le problème de fond c'est que waxtaan bi. Euh, président bu demee ba bàyyi assemblée nationale fële ne day wuti dialogue muy benn mais suul na assemblée parce que rôle assemblée moom mooy waxtaan mais comme assemblée dafa def ci parrainage bi vote sans dialogue vote sans débat <laughs> leer na de bu bàyyee fële conseil économique et social bi mais conseil économique et social bu Mimi Touré bi wala bu Aminata daal mais ñooñ ñoo waroon defar jaloog bi yooyu ay institution pour jaloog la euh, mouvement euh, au conseil pour le jaloog social dañ koy fàtte rek mais au conseil boobu lan mooy mbaaxam mais mooy waxtaan kon boo jëlee institution yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo waroon def jaloog nga teg leen fële nga ne da ngay def jaloog yow mais loolu dafa tekki ne yow li nga doon woote dafa la manqué maanaam autorité bi amatoo ko léegi kan lañ jox autorité boobu ñëpp d'accord ci moo doon Famara kon Famara moo waroon dem seeti journalisti yi seeti baykat yi seeti éleveurs yi seeti ñëpp seeti enseignants yi wax ak ñoom ba pare ñëw ne président bi dem naa seeti ñëpp fàtt fàttewuma mareyeurs yi fàttewuma waa jiwaalo yi fàttewuma pêcheurs yi à Mbour yëpp def yëpp ak waa Casamance yi guérilla beeg yooyu faamara bu defoon loolu ba pare ñëw ni ko list baa ngi nii mais list boobu moom mooy liste dialogue mais list boo xam ne Macky yi ba moo ko defar amul autorité bi kon problème bi posé tey mooy euh, dialogue moom euh, li nga xam ne moom moo taxaw tey mooy li ñuy wax refondation jaloog moom c'est dépassé lu tax ndaxte gaa ñi raté nañ ko raté nañ ko te ñoom seen wax démb wane na ne raté nañ ko parce que ña fa waroon a ña waroon a toog ba gëm ko dafa mel ne demuñu boo gisee le plus fort groupe parlementaire du pays mais c'est Ablaye Wade bu fekkee ne Ablaye Wade demul te ñëpp xam nañ Ablaye Wade waxaat nañu ko lu tax demul mais bu fekkee ne da ngaa bëgg PDS ñëw mais da ngay wax ak PDS nga ne ko bëgg naa nga ñëw ko envoyé la ko ko doy mais boo demee nga jël ay tur yoo xam ne laajoo waa PDS si ah jaaroo ci yoon bu dee noonu nga def ñëpp ñi nga jël loolu dafa tekkine ne bi dina doy waar kon nag na xel yi dellusi euh, ni ko ku mel ne Alioune Badara Cissé gisee parce que moom vraiment am na xel trop macha allah moom gis na ne euh, médiature bi xam nga ma médiateur lañ koy tuddee mais médiateur normalement bu fekkoon ne def na may nañ ko mu def liggéeyam mais dialogue bi du am ndaxte médiature lan lay jëriñ moom mooy yombal dialogue bi Alioune Badara Cissé bi mu demee ci Fouta seet suuf yi mais moom moo gis ne ñu ngi jël suufu jaambur yi di ko jaay ba mu ko waxee ñen ñoo dal ci kawam ay ministre ay politiciens ak yooyu alors que Alioune Badara Cissé rôle bi mu doon joué mooy rôle lu koo xam ne euh, moom la ñuy wax médiateur léegi boo dindee conseil économique joxoo ko pour mu defar jaloog mi joxoo ko assemblée nationale joxoo ko au conseil joxoo ko médiateur jo yow ça dire que li ngay wax du dialogue kon nañu dellu si xel yi réew li li ko tax a dox du ay jël ay loi ay décret ay arrêté déedéet waxtaan ba juboo loolu lu maam yi jàngale loolu lañ fi fekkoon loolu la ñoom Souleymane Baal doon def ca Fuuta Tooro léegi loolu la maam yi doon def tout le temps moo tax ay moom nit ñi ak di of fañin fañ-fañ wàcc accaaj yooyu amu fa woon kon nañu góorgóorlu ñu bañ a sagante ànd yiw te xam ne réew mi réewu xam-xam la léegi nag li ko jëmmal yépp li nga xam ne mooy defaraat jikko loolu refondation la tudd refondation bi nag li ko jëmmal tey jii te ñëpp d'accord ci ah mooy Massalikul Jinaan Massalikul Jinaan bi du bâtiment kon maa ngi fàttali Macky Sall gis naa ko mu dem ci Masalikal Jinaan noonu nii Masalikal Jinaan du bâtiment de bon ñëpp gisoon nañ Macky Sall bi muy euh, sol ay dàllam di dugg ci juma Touba Mor Ngom ni ko dindi sa dàll yi mu bañ xam naa rek euh, dafa amoon dafa toll woon bërëb rek waaye loolu moom garaawul waaye Masalikal Jinaan dem fanaan naan nii Masalikal Jinaan defaraat jikko la Masalikal Jinaan defaraat nit ki xam-xamam jom xel loolu la masalikul jinaan jub la ak loo xam ne doo ko def ndax sunu borom daf koy aye loo xam ne kon nanu lu ñu xam ne depuis le 27 septembre ci Sénégal gii ñu nekk professeur Malick Ndiaye ko parce que man dama ciy liggéey am nanu benn mandarga boo xam ne ku ko jàngat xool ko jàngat ko bu baax da gis ne jikko maam yu baax yëpp te sunu mbokk catholique yi ñëw nañ fa ci lañ bokk attention de masalikal naan du masaliku euh, ñiy woote murid wala dara de masalik ni ni sëñ Touba liggéeyee masalik lépp ci àddina bi la jël clarifier ko leeral ko moo tax mouridisme du confrérie na leer de c'est pas une confrérie le mouridisme mouridisme yoon la yoon boobu nag tawraat injil quran yëpp ci la bokk kon nanu góorgóorlu Sénégal gën a màggal sunu maam yi ak sunu mbaax yi waaye loolu pour ñu def ko il faut que ñu gore kon refondation bi moom il faut mu indiwaat defaraat jikko boo déggee refondation refondation mooy defaraat jikko ki nga xam ne bu faloo wala buñ ko falee daf naan oui yàlla moo moo fal yàlla falu la de yàlla falu kenn yàlla ëllëg lay seet ku nekk la nga jëfee c'est pas pareil de autorité ak pouvoir du benn xam naa dinañ ci dellusiwaat beneen yoon autorité ak pouvoir du benn yàlla autorité nit koo xam ne daf ko jënd autorité dañ koy jënd ci jëf léeg-léeg mu metti lool comme Sëriñ Tuubaa niñ ko def di ko yóbbu ba Gabon fu ne ñu dugal ko loolu daf koy jox autorité maanaam boromam daf koy jox épreuve loolu la gars yi di wax épreuve waaye pouvoir ni jahilun fil ardi kalifatan bi bi ñu waxee ne dañuy jox nit mu toppatoo mbiru nit ñi société bi gàncax gi climat bi gaz bi pétrole beeg yooyu am na ay malaaka yu jóg ni ko yow yow da nga bëgg a indi fii problème yàlla lañ doon waxal de ñoom mu ne ko da nga fi jox koo xam ne désordre lay indi dans le monde mais loolu mi ngi ci albaqara bu leer kon affaire bi nii bu ñu juum nit dafa am mission mission boobu dafay war a wane jikkoom ci nu muy defaree ay tànkam tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ lépp koo xam ne jàngal nañ la alxuraan wala injil muy évangile bi nga koy réciter rek te jëfewoo ko yoo xam nga ne yow baaxoo parce que dañ ko il faut nga jëfe il faut nga wax ko waaye dafay dugg sa xol moom la ñuy wax làmmiñ xol waaye du yam foofu fan la war a egg foog mu egg ci cër yi kon cër yi làmmiñ xol cër mais éducation bi maam yi daan def loolu la kon erreur bi am ci Sénégal te xam naa ni defaraat jikko bi moom mooy refondation foog mu am mooy foog ñu dem jëliwaat ni daan jàngale di defar jikko yi par exemple affaire dof dëgg-dëgg école bi gën a mag Sénégal ban la mais kooku daara yi la première école de la République Sénégal c'est pas l'école française maanaam li may wax Fédérbia Albida l'arbre de bu l'acacia du foofu de première école bi nga xam ne moom mooy jàngal nit ñi fii Sénégal du école tubaab kooku école daara yi la kon maître coranique yi maa ngi leen di lancer waat appel c'est-à-dire que maître coranique yi sëriñ yi confrérie ak yëpp ak église bi il faut que ñoom ñu dimbali réew mi mu dem jëli li nga xam ne moom la notamment franc-maçon yi ñëpp xam nañ ko de ay franc-maçon ñoom ñoo ne gëm yàlla nit benn philosophe moom moo ne Dieu est mort Dieu boobu moom la franc-maçon yi jël nee nañu ëllëg amul mais ñun suñu jikko boo demee ci réew joolaa yi nu ñu yare nit dañ la naan del fàttaliku démb nga sedd ëllëg mais franc-maçon bi ki nga xam ne dañ ko formé moom est-ce que dana dana calculer ëllëg déedéet fii la yem lay wax fii la yem boobu nag moom moo dugg ci biir ni ñuy wax les politiciens maanaam lu ñuy def duñ ko fay ñun lu ñuy lislam jàngal ak christianisme ak tawraat mooy alhakumut takathur hatta zurtumul maqabira maanaam lépp loo xam ne da ngay wut alal rek alal kese kese kese da nga dem ba fay ko kon ñun bu ñuy euh, dox ci dëkk bi dem jàngi siin ñu ñuy jàngal dem jàngi parce que professeur moom taalibe la man damay jàngi léegi bu ñu demee ba jàng ba jàng ba wër fu ne fuuta wër wër wër dañu naan jaay ndekete ñun maam yi liñ fi liggéey bàyyi ko fi buñ ci jaaroon mais suñu affaire dafay dox kon nañuy fàttaliku démb waaye di sedd ëllëg ñi nga xam ne nag ñoom ñooy franc yi beneen yoon nañ ci dellu si nëbbutu ñoom dañu ne yàlla amul ëllëg amul li am mooy tey mais bu fekkee ne li am mooy tey rek man damay layoo ëllëg fa man yaxmal misxaala daratin xayran yara fa man yaxmal misxaala daratin charran yara mooy loo xam ne boo demee Ziguinchor nga dem ci réew joolaay muy kasa muy feneen nga dem fépp séréer yi yeeg yëpp fuuta foo mënti dem nit ñi dañu naan lu am tey ëllëg da nga ko mais franc-maçon bi nga xam ne moom gëmul loolu dafa ne affaire yi fii la yam kon refondation bi nga xam ne mënul ñàkk maanaam defaraat jikko yi nañ ci góorgóorlu refondation boobu buñ ko commencé waxtaan ci ndànk muy Macky Sall da ciy bokk Moustapha Niass ñoom Mimi Touré ñoom ñëpp ak ñoom abla Wade ak ñoom Idi ak syndicat yeeg central yeeg yooyu buñ ci waxtaanee danañ xam ne ñun ëllëg xëy na waa France waa Amérique ñu ñoo leen di jàngal nu ñuy def ba addina bi yem addina bi tey parce que li leen manqué mi ngi fi maam yi ñoo ko fi def kon fàttaliku demb sedd ëllëg buñ ci jaaree danañ xam ne masalikal jinaan du nu mere euh, Thierno Souleymane Baal mi nga xam ne bés bu nekk mu fëgg ci portu Sénégal ne he gars yi fu ngeen jëm El Hadj Omar Foutiw kon li ñu am tey jii lu rëy la waaye nga jël sa alal nga soofal bañ koo respecte dangay ngay dem ba xaw a dugg ci luy nuroo guuta kon guuta gi nañu toog waxtaan na ñëpp waxtaan loolu mën laa gis ci li nga xam ne mat na léegi ñaar fukki at juróom ma koy bind te mi ngi nii. muy letik ceddo bi nga ah, bindoon. letik ceddo baa nga kon refondation bi mën na wekku foofu. ah refondation bi euh, sama ay ñoo xam ne ñoom ñoom gën a ëpp euh, euh, dangar sax ci sociologie muy professeur Boubali nee na nan defaraat lépp waaye professeur bu Boubali bi muy wax loolu ci benn livre boo xam ne professeur Souleymane Gomis moo ko bind fekk na man bi ma demee ci piir waxtaan ak ay ñoo xam ne dañoo jàng ma ñëw waawan dem Njoosi dem fu nekk dem waxtaan ceeg Sidi oh Sidi lamin waxtaan ceeg gars yi dañu ma mais prof yow bon gis nga affaire bi léegi il faut ñu dem jël li nga xam ne ñun ñoo ko moom muy suñu mbaax mais boo jëlee sunu mbaax nag doone léegi damay dem jël euh, arab wala l'islam ma dugal ko ci système scolaire bi déedéet du loolu de il faut inverser. Sénégal moom bu ñu nee ceddo mooy ko amul diine amul il faut inverser cest à que il ñu dem jël li nu moom muy sunu mbaax te euh, diine moom ci la bokk buñ ko jëlee jël jikko ji nga xam ne diine moo ko dimbale. moom la suma mbokku pulaar yi di wax ndimaagu nedd ko golle e balle maanaam que nit ku baax waxam ak jëfam dafa war a nuroo <laughs> ñëpp xam nañu sëñ Abdou nee nit koo xam ne waxu démbam dafa woroo ak jëfu tayam kon nanu góorgóorlu te xam ne euh, Sénégal waruñu ko yàq comme dit l'évangile euh, je ne suis pas venu Ça, ah, c'est Matthieu. L'évangile selon Saint Matthieu. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir mooy nanu bàyyi lu nit def rek nga yàq ko lu Macky Sall def rek nga yàq ko lu Abdoulaye Wade def rek nga yàq ko lu Idrissa Seck wax nga dindi ko loolu nañ ko bàyyi loolu mooy abolir nanu bàyyi abolir léegi nanu def lan mooy accomplir accomplir nag ñëpp mën nañ ci ànd waaye accomplir moom mooy li nga xam ne jàngal nañ ma ko man ci foyer religieux yi ci daara yeeg ak église bi mooy jikko ni jiitu jàng boo jàngee nga nekk ingénieur yàlla na fekk jikko bi jiitu boo jàngee nga nekk agrégé yàlla na fekk jikko bi jiitu kon moo tax waa ji ni ma professeur xam nga yen am ngeen faculté des sciences ba ni ko waaw mu ne am ngeen faculté de droit ma ni ko waaw mu ne am ngeen faculté de médecine mu ne xam nga ban faculté moo fa manqué ma ne ko laa ban faculté la mu ne ma faculté jikko kon le problème du Sénégal mooy faculté jikko faculté jikko nag ñëw na ari arti mooy masalikal jinaan kon nanu def ndànk ñu waxtaan bañ fi xeex bañ fi xuloo bàyyi di yàq bàyyi di abolir nañuy accomplir man daal loolu moom laa woo ñëpp depuis muy Macky Sall muy ñi mu àndal ñu baax président Abdoulaye Wade muy ñoom ñëpp ñoom euh, président Abdoul Mbaye Idrissa Seck ñoom ñëpp Sonko ma kenn na ñëpp daje dajeeg réew mi dajeeg syndicat yi dajeeg central yi ñu def kuréel boo xam ne moom du nekk kuréelu kii waru fa toog wala kii maa ko wala kii kuréel boobu loolu la ñuy wax refondation refondation boobu nag sëriñ yi église yi danañ ci bokk man loolu laa jàpp ne Sénégal bu ko defee yàlla dina nu aar waaye yàlla boo bëggee mu aar la na ca fekk loxol borom ya yàlla di na ne yàlla déedéet la jox mission nit moom moo am mission inni jaahilun fil ardi xalifatan ça veut dire que l'homme dafa am mission sur la terre mooy defar climat bi yàqu ni mais c'est parce que gars yi dañu sàcc Euh, produits yi produits yi dañ ko jël lu ëpp muy américains yi muy français yooyu donc tricherie yooyu moom moo indi détérioration climat bi inni jaayilun fil ardi xalifatan li mu tekki mooy nit dafa war a toppatoo garab yi toppatoo climat bi toppatoo lépp ba nga xam ne nit ki fi muy dund dana baax waaye toppatoo aussi suuf yi boo demee nga jël suufu Fuuta yëpp nga jaay ko nga jël suufu lébu yi nga jël suuf yi nangu ko jël maréer li amoon mais yow xam nga ne d'accord ci li nga xam ne ëllëg da nga ko layoo kon ñun ñi nga xam ne Sénégal danoo d'accord ne nit lu mu def tey daf koy layoo ëllëg ñu war nañu xam seen bopp jóg ci jàmm ak salaam ñu waxtaanee réew mi ci dëggu te loolu moom mën naa nekk professeur kàddu gu mujj gi ah de moom mooy man bu ma sañoon dañuy def benn euh, comité euh, pour la refondation euh, du Sénégal maanaam comité pour defaraat jikko mën na nekk comité boo xam ne refondation lay nekk kooku Macky Sall sax mën na ci bokk waaye du ko jiite moom Famara mën na ci bokk waaye du ko jiite kon comité pour la refondation boobu. Euh, lay Wade kon nanu seet rek waaye loolu euh, sëriñ yi forcément foog ñu bokk ci euh, église bi daf ciy bokk comité boobu moom mooy comité boo xam ne nit ñi ñoo ko tegal seen bopp du comité xaj ak seen du comité o fañ fañ fañ wala yooyu du comité kii comité normal la boo xam ne ñi am xam-xam bu wóor dañ ci nekk ak yooyu kon góor góorlu dem dépasser affaire ay dialogue parce que comme ni ma ko waxee woon il y semaines dañ ko piégé nañu jëm ci refondation bi léegi nag comité pour la refondation euh, man du man maa koy def waaye sama xalaat laa joxe rek ne refondation mooy refondation jikko jikko nag boo ko refondé ba pare da nga xam ne loo def tey ëllëg da nga ko layoo waaye boo ne fii la yam kooku ay jikko franc-maçon ñun mënul développer Sénégal jërëjëf kon mbokk ñu doon teewlu ci Sénégal set gis ngeen ko noonu ñu déplacé woon tey euh, université Cheikh Anta euh, doon dalal wala professeur euh, Malick Ndiaye doon ñu dalal moom nag di yëngu lool ci société civile bi bokk ci collectif ñoo lànk bi nga xam ne dañ ko sosoon ginnaaw bu ñu yokkee njëgu électricité yi di jiite amit doon coordonnateur des du cercle des intellectuels du Sénégal ñu koy gërëm di ko sant yéen tamit ñu leen di gërëm di leen sant di leen dig daje beneen àllarba jërë ngeen jëf.